waaw kaay bi ñàkk yërmande waaye ñàkk a xam sa bopp la. waaw. muy benn woo illaa. waaw. ñàkk a pexe ñàkk a am pexe. ñàkk am pexe. waaw wa illaa def li la neex. waaw ñett moom moom laa jàpp ndax li waaw li ñàkk lii ñàkk am pexe mooy. waaw. su fekkee da am waaw nga jox ko ngooñ ma jaayi la ko mu lekk ngooñ ma ba mu jeex. waaw. bu boobaa moom mën nañoo wax ne kooku tayu la waaye da ngaa ñàkk pexe. waaw. soo soo jaayee ngooñ ma. waaw. te nga mënoon koy ñàkk a jaay. waaw. te jàpp naa ne it bu doon mën jaay dugub bi moo ma gën a jaay ngooñ mi. waaw de waaw ndax dund ak dund ak moo gën a jëfee dund ak nit. waaw waaw. waaw kon booba jàpp naa ne boo jaayee ngooñ mi ñàkk a xam sa bop la. waaw. ci at ni ma nit ñi la déggee. waaw. est waaw su nag yooyu ma ne ah. waaw man dama si am beneen xalaat. waaw de man pareegu ma di. waaw waaw. xam nga dama laa wax ñett yi doon man su fekkee ba gars yi def euh, yooyu yëpp amul. waaw maanaam ñàkkul a xaalis yi ndax wutal moo la neex rek kooku def lu la neex. waaw ah loolu moom borom la concerné. waaw eh, man xaama ci dara waaye li muy tóor mooy. waaw boo lonkee dana ca feeñ moom. waaw. boo lonkee moom. waaw. yaakaar naa ne lekk gi moom dana ca feeñ moom. waaw nag yow noo koy lijjantee de. waaw man li ma gis mooy. waaw comme fas yi dañ ko war a taaroo di ko war da si noosee. ma xalaatoon ne. maanaam fas nañ leen bàyyi di leen war. su ko defee ñu delluwaat sa la maam yi daan béy ndax ñun cosaan lañ bëgg konk joore sonk joore bi su ko defee ñëw ñu dem dangaa ñëw ñu dem ci nag ma ne waa non jëru sol yi ñëw ma ne waaw ma ne waaye defar naa si njaañ nga dëkk waa déedéet xam nga xam nga su may wax pare man sama wax waaw ma ne boo paree xam nga bala ngaa toj jëmee sax waaw déglu rek déglu rek ma ne waaw yow it na nga dellu ca maamee Dakar di nga ne nañ la ko nangul waaye fooy dama di nanga bu lekk ceeb bu lekk dara yow yow kii lañ daan lekk yow dañ daan lekk ña ne cere dafa yàgg ca maam ña ne léegi ngeen nañ jël ca la wax naa ne fa nga wax du wéddi sa bopp waaw déedéet yow yaa ma déglu de ma ne tegal téléphone yi nga daan wax da nga damaa déglu oto dal dox Papa Laaj Mbaye yow xanaa man damaa pare gu ma fa nga xaar bu ma pare fa nga li nga doon ay ah, ban xaar kay man sama xalaat ah. laa wax li ma gis mooy bañu moo tax xalaat de waaye comme yow noonu nga xalaatee ma tontu la may ni ma xalaatee am naa ci droit di xam nga ñun ñun dañuy delluwaat sa maam yi la maam yi doon dund waaw loolu laa bañ de kon loolu laa loolu laa kii de bañu ma loolu dama ne waaw nangu naa ñu dellu sa maam ya waaw kay alhamdulilah waaw sant yàlla waaw alhamdulilah ma ne waaw nit lu mu wax na ca njëkk na ca jiitu waaw boo déglu sangu da ngay sangu ba pare loolu téere rek ko sañ déglu sangu te doo sangu waaye yow li ci mën a wax daal boo ko bëggee mu sax danga cee jiital sa bopp waaw waaye def leen nii kenn du ko wax nañ def nii la ñuy wax waaye def leen nii kenn du ko wax na a ak acca rek boo jiitee ñu topp sa kaw waa kay li ma gis mooy waaw parce que noosee kaay la te nga xam ne problème bu koñ dañ koy am ñu bay lu yem delluwaatu sonk joore tool yi nga xam ne la maam yi daan bay ñu delluwaate bay lu yem yow juum nga ni yow juum nga ne ne comme parce que noosee la waaw waaw boo fay du ñàkk du ñàkk fas pour noos la war loolu lañ ko war a defee waaye naa ko rek ma ne noos moo la lan waaye noos mooy boo bëgg a dem nga war sa fas nga dem nangam su ko defee nga xam ne ñu wuti ak sonk ñoo dem ñu commencé à di konk ñu commencé à di konk lu maam yi daan def ñu eh, ko di fas moom ren duñ ko lekk ba léegi fañ koy takk rek waxuma la fas de ah waaw kon kay kon waaw bu a xam nga fas boo déggoon waaw papa la waaw balaa ñu yow tey yow yow bi wax déedéet yow foog ma déglu tey de waxtaan du neex tey foog ma déglu. déglu naa la ah, yow yaa wax te bëggul ko tontu. ah déedéet kay yow man maa ngi wax pareegum waaye nag ma war a may kay ba ma daanee. waaw ak waxal. waaw kay li ma gis dégloo kay moo gën a yomb. waaw li ma gis laa te xalaat ko mooy. Ah. ñu delluwaat sa maam yi comme ñun yàlla dogal na xamatuñ fuñ jëm. ñu delluwaat sa maam yi te lañ naan bayee comme jur gi mënatuñ koo toppatoo. ndax doo bayee jur ba nawet bi wàcc maam yi seen mi seen mission lañ xam mission boobu moom la ñuy seet la xam ne nii luñ ci war a topp ñu topp ci la xam ne ni suñ mission ñëw na ko ñu ànd ak moom bokk ca loola. ah yow nan nga ko gisee yow. ah yow gisee na ko noonu kon. ah de man kay damaa laaj man damaa laaj ndax yow noonu nga ko gisee laa wax. waaw ah de man de xam yow daal yow nu ko gisee yow. ah waaw baax na léegi yéen a ngi xaar yéen. ah. ma ne yéen a ngi xaar. mu ngi xaar naan. ñu xaar àdduna la kay lépp xaar naa loolu waaw boo dégg xam nga tey nit ku la la ngay am yaa ngi xaar la man xam nga xam nga kii ma ne xam nga kii dund xaalar ba mu ngi xaar alxames waaw nangu naa loolu waaw dund mu ngi xaar ba àdduna xaar la rek parce que yow loo bopp la koy defal rek loo xam ne la koy defal boo ko xaar bu war a Bay baax na ñu xend jàmm ñu xend jàmm yaakaar naa tey waxtaan bi daal gëw moon ndax yéen a ngi xaar fu mu waroon dégg ba ma daanee ndax waxtaan bi xamul kii fa ngay wax ñu de la tontu waxtaan moom bi jàll débote yow la man moom suma yow fa ngay wax ñu de la tontu. waaw xam nga yow baykat nga su ma na la yéene ngi xaar xam nga bay lu man ma ne waaw dee baykat laa ci laa nar a dee ñaakaaratuma dara li nekk suma dund bi lu dul mbay waaye man mi moom laa doon lu ma nar a def ma bay bokku ca loola faa koy baax waaye man moom laa doon waaw lu mu leerootin ma nekk ca mbay ma mbay moom fekkee naa ko boolee dara xanaa loolu bu bu ma defee mbay ma fukk loola benn laa koy def waaw man koy baykat ci yaakaarutuma moom waaw man mi baykat laa te loolu laa bëgg man moo tax waaw naa boo ko waxul waaw xam nga yow yaa di wax loolu mais man du ma toog fii di ko wax waaw nangu naa léegi xamul tax ma ne moom ñi nga xam nañ ko ñi ma dëkkal xam nañ ko ñi may dégg xam nañ ko xam nañ ne loolu laa dund dund. waaw te loolu laa gëm maa ngi waaw ma ne bu ma xëyee ah. xam nga lu tax ma ne yéen a ngi xam nga tey kuy bay yaa ngi xaar euh, euh, ñàkk ndox yaa ngi xaar tool yi am ñax yaa ngi xaar ñàkk jiw yaa ngi xaar ñàkk engrais yaa ngi xaar ji mu ñàkk a sax xam nga yaa ngi koy xaar moo tax ma ndax yéen a ngi xaar na ma waaw loolu yëpp ci nawet bi la bokk. yéen a ngi xaar sax ma ne waaw. ñu ngi xaar ba sa place bi lakk yi di ñëw masawu la ñuy. déedéet déedéet Papa Alaaji Mbaye xam nga man fi nawet la ñuy waxtaanee man béykat laa yow béykat nga. man may ah, déglu yow xam nga am nga droit waxtaanee ci nawet mi ñun am nañ droit waxtaanee. ñu ne waay waay déedéet man béykat laa comme yow. waaw boo dee man d'accord ba nga waxee béykat muy commerçant laa comme yow rek bàyyi ma wax ci commerce bi. waaw dama ne yéen a ngi xaar li ma yooyu yëpp xam nga ci nawet bi la xam ne bu fekkee amul ci nawet bi du ma ko wax. waaw xaar man bii la xaar bi moom yow gisoo ku ji toolam saxul yow gisoo gisoo ku ji toolam saxul ñun ñu ngi xaar xaar ci ab jullit lay xaar ak ku mën a doon doomu aadama bi def lay xaar ndax mi def mënagul boppam dama ne gisoo ku ji la gisoo ku ji toolam saxul yàlla indi rek nga dund ak moom dem gëm nga yàlla yow gisoo ku ji toolam saxul gisoo ko dem ba nawet bi da waaye commencé fasam dee gisoo yooyu yëpp yooyu ñu ngi koy xaar si nawet la bokk loolu laa gisee loolu laa gisee place lakk yow bërki fan yi yaa ngi dégg lakk place lakk yaa ko dégg waaye déedéet yow ñaata marché ñoo ñaata marché ñoo lakk man waxuma la waxuma yow bul jël jëf damaa wax rek pour na man maa wax ak yow man maa wax ak yow eh, papa laaj mbay baax na ñu yendu jàmm yàlla may jàmm ak salaam wax dëgg yàlla tey moom waxtaan neexu moom ndax li mënoo xaar si waxtaan lu lii ndax waaw ah, baax na jërëjëf waaw xëy na du ñàkk yërmande waaye ñàkk a xam sa